salaamaaleykum mbokk internautes yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ñu ñëw ak yéen ci onze probable ci match bi war a dox tey ji ci diggante Real de Madrid ak Manchester City di amee ca Etihad Stadium Manchester City mooy dalal Real de Madrid match boobee dix-neuf heures lay door dina mitti lool nag ndax ñaari club yëpp li ñuy wër moo di qualifié dem ca finale Ligue des champions ba waaye laata ñuy ñëw ak yéen ci yaatal gi nag ñoo ngi leen di fàttali ne ñoo ngi ànd ak Bio Afrique Bio Afrique nag dañoo yor produit yu baax ci wér gu yaramu doomu aadama yaram rawatina ñaari jàngoro yi sonnal ñëpp muy hémorroïde wala ndoxum siti képp koo xamante ni nag yitte woo nga ko rek mën ngaa woote ci numéro yooyu bu leen yàlla dëppalee rek incha allah dinga nga ca am lu kawe sa njortu ñu ñëw ak yéen ci yaatal gi ci once probable bi nga xam ne moom la King Ouse Ngary TV jàpp ne ñaari coach yi moom la ñuy taxawee onze probable nag mooy fukk ak benn yi nga xam ne moom la ñu njortu ne match boobee buy door ñoo koy door jongante ak seeni nawle bu Manchester City mii dalal Real de Madrid li ñu jàpp moo di Pep Guardiola taxawaay bii lay taxaw muy 4-3-3 ca kang doomu Brésil bii di Ederson moo fay nekk ca défense ba Ruben Dias nekk doomu Portugal moo fay feggoo ak Stones nekk doomu Angleterre ca latéral droite ba doomu Angleterre bii ñu naan Kyle Walker la ñu fay xaar ca latéral gos ba doomu Suisse bii di Akanji moom la ñu fay xaar li ko waral moo di Ake di doomu pays ba dafa am blessure du bokk ca match boobee kon Akanji la ñu jàpp ne mooy taxaw ca latéral gauche ba bu dee ca milieu de terrain ba ñett ñii la ñu jàpp ne ñoom la Pep Guardiola di wóolu muy Gundogan feggoo fa ak Kevin De Bruyne di doomu Belgique ak gone gii di Rodri nekk doomu Espagne ñett ñooñu la King Ouse et TV jàpp ne ñooy taxaw ca digg ba bu dee ca attaque ba ñett ñi la ñu jàpp ne ñoom la Pep Guardiola di wóolu départ lo leen ca kaw bu dee ailier gos ba li ñu jàpp moo di doomu Angleterre bii di Jack moo fay nekk bu dee ca attaque ba doomu Norvège bi di Haaland la ñu jàpp ne mooy pointé ngir dugal ay bit bu dee ca wetu ndijoor ga muy ailier droite li ñu jàpp moo di Bernardo Silva di doomu portigal moom la fa Pep Guardiola di teg kon taxawaay boobu la ñu jàpp ne moom la Pep Guardiola di taxawee mu nekk quatre 3 trois ngir mën a am ndam ci kaw Real de Madrid dem ca final Ligue des champions ba ba noppi jël Ligue des champions bu njëkk ak club boobee di Manchester City match boobee 19h lay door bu dee waa Real de Madrid mi war a fekki Manchester City ca Etihad de Stadium taxawaay bii la ñu jàpp ne moom la karlu Ancelotti di taxawee fukk ak benn yi nga xam ne ñoom lay wóolu ngir ñu départ tey jii ca match aller ba nag na mu taxawee woon noonu lay taxawee waaye coppite nag mën na caa am li ko waral moo di Eder Militão dellu si waat na te keroog nag ki départoon moo di Antonio Rudiger def match bu baax Carlo Ancelotti sax génnoon ne wax ne mooy départ tey jii waaye kat tey jii King Ouse Ngary TV xibaar yi ñu mujj am jëlee ko ca Real de Madrid soo moytuwul moom Antonio Rudiger du départ titulaire ndax démb ci entraînement bi paa bi ni mu doon doxalee dafa mel ni Eder Militao moo war a départ titulaire te tey jii tamit xabaar yi nga xam ne am nañu ko mu jugee ca Espagne Eder Militao mooy départ so moytuwul onze bii nag la ñu jàpp ne ñooy départ ji ca Kang tibo Thibaut moo fay nekk défense ba Eder Militao moo fay feggoo ak David Alaba latéral droite Carvajal latéral gauche Eduardo Camavinga ca digg ba ñett ñii la ñu jàpp ne ñoo fay taxaw di doxal muy Toni Kroos Luka ak Valverde bu dee ca attaque ba Benzema moo fay nekk feggoo fa ak Vinicius ak Rodrigo taxawaay boobu la King Ouse Ngary TV jàpp ne moom la Carlo Ancelotti di taxawee loolu nag dara officiel la ci njortu képp la. waaye nag bu ñu demee ba match bi des waxtu wala waxtu ak genn wàll mën na nañoo xam ñaari club yépp onze bi ñuy wóolu ngir départ lu leen ca match boobee nga xam ne àdduna gépp a ngi koy xaar bu 19 heures jotee nag le coup d'envoi bi maanaam ci lay door ñoo ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm ba ci kanam tuuti ak revue de presse bi incha allah.